su sëñ saalihu digaloon ndigal yu kawe yooyu te su fekkoon day nekk ba ndaw yooyee nekk mag mu door leen koo digal ana ñooñu sëñ Ahmadou jërëjëf sëriñ Xaali euh, li nga wax nii leer na nañ wane ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu féete woon na lépp féete woon na mbiram yëpp jëbbaloon na ko boromam ba taxit loolu lam ko jural moo yàlla méngu ay mbiram in waliyallaahu jooju nga xëy moom la ayesmini law indi jiwali ba tax noonu yi gën a rëy gën a importance moo luñ ko dara ndax wakkilu gaa ko ko may li nga wax léegi tamit ne wax nga ko léegi sa biir wax mu leer nañ nga xam ne bi muy door a dem bi muy door a départ ak ba fa dund ak bi mu ñëwee lépp a yem ndax li rabbil tijaa yi fii hudóor yi waxay bati la waxoon obil Moustapha askoluhu niama zulami kon loolu dafay wane rek kon ak teewaayam ak fàddoom léppum lépp yam yëpp ci boromam la ko la la kon loolu lu leer tey it bañ ne ko ñëwal wéeru ci buur mu ne waxul ah, xasbi rabbi waxta faytu bii yàlla doy dama doyloo naa ko loolu lépp ko dafay bañ rek wakkilu gi xam ne moom la maam waxam bu njëkk ak bi ci digg bi ak bu ci mujj bi lépp leeral nga ko ne benn la li ko war a mooy tawakkalu bi nga xam ne wakkilu gi dafa na ko si borom tabaraka wa taala sëriñ Abdul Ahad nga ñëwaat rek kon ci euh, circonstances yi nga xam ne sëriñ Yuusu junj na ko léegi ci la euh, bind xasida gi te xasida gi kuñ ko jox nga xam balaaxa nga xam raw nuxul adab nga xam jamaalul adab ñu ne la xasida gi borom bi mu koy tëral ci ay circonstances yu métti la ko def nga weddi ko loolu lépp li ko koy may mooy tawakkul tam day indi nit xel mu dal kon boog loolu bëggoon nañ ko nga ñëw ci xasida gi sëñ laat Niang ci rafetaayu xasida bi li ko waxee ndax rajas la baaxu rajas lañ ko lañ ko ko la ko borom taalifee la ko borom të euh, tëggee nga ñëw ñun kon ci baaxaru beeg rafetaay bi ba noppi nag ak ni nga xamee noonu la ci feeñale tawakkulu wakkil gi mu wakkil ci borom ak situation yi mu nekkoon. jërëjëf euh, sëñ Mouhamadou Touré jërëjëf euh, sëñ Khady Diakhaté jërëjëf it mbokk yi nga xam ñooy topp jotaay bi di jaajëfal sëñ Mara ak sëñ Youssou waaw xasida gi bu fekkee ne dañ ci bëgg a taxaw tuuti muy xasida gi nga xam ne mooy xasida jotaay bi muy biñ tënkee xasbunallahu wa ni'mal wakil muy xamittu man yaasimu nii min ad darar min kulli cheytaani wa jinnin wa bashar xaside gi dëgg wax nga ko léegi ci baxru rajas la ko sëñ bi taalife baxru rajas nag euh, bari na lu ci sëñ bi taalif moom daanaka boo xoolee téere xam-xam yépp ci baxru rajas la ko la ko taalif ndax xam nga dañuy wax ne euh, baxru rajas dafa gën a euh, neex a mokkal mm-hmm. boo ci boo ci boo ci boo ci defee moo tax téere xam-xam yi ndax bu dee bu dee bu dee wàllu bu dee wallu adab mm-hmm. ndax us asalib yi ñetti uslub la borom xam-xam yi tëral mm-hmm. uslub adabi mm-hmm. uslub ilmi mm-hmm. uslub ilmi mutaadib ñetti ñetti fànn yi moom la moom la may uh, ada ci wàllu wàllu ñi gis ci wàllu bind moom lañ tëral uslub adab yi moom mënees na caa jëfandikoo baati kalimatul udaba mhm. nga xam ne baat yi baat yi yaa ngi cay fekk mhm. du doon baati ulama xanaa am mhm. kalimatul udaba ak kalimatul ulama kalimatul udaba mooy baat yu diis baat yoo xam ne daanaka dif sane ngay xool pour xam ko jëlal diwaanu naar yi jëlal diwaanu Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yooyu baat yaa ngi fay fekk da ngay xoolee dictionnaire pour féegu lu ko waral daje uslub adabi lu ko waral fi mu teg ki muy wax ndax dañ ne li kulli maqaamin maqaal wa li kulli qawmin xaal ñi ngay wax ak ñoom te fekk ki ngay ki ngay waxal tam nekk cadre waxal ak moom us xaatib nas ala qadri uqulihim ki ngay waxal teg ko place bu dee ponkal ci wàllu ëdëb baat yi nga war a jëfandikoo daa war a tollook maqaamam moom moo tax ñuy wax ak moom ci la moo gis ñu naan diwaan naari daa jafe diwaan Cheikh Ibrahima ji daa jafe de ki muy waxal la xam ne ponkal la ci ëdëb mm-hmm. ci wàllu bind nii rek moo tax moo xam ci usubu mm-hmm. gis gisee ke naar bay wax moom awlaahu mawlaahu maa awlaahu min rotabin lillahi lillahi maa awlaahu mawlaahu xam nga loolu ko xam ishaaraat yi da nga daal di xam ne ki muy waxal adib eh, mi goog hmm. te loolu yonent bi mooy ci exemple hmm. sallallahu alayhi wa sallam hmm. yonent bi gis nga bi bind leetar najaashi yi nga xam ne nekkul cadre ci wàllu bind bi mu koy bind leetar bi mu koy bind leetar yi baat yi jafe baat yi yomb la ci jëfandikoo aslim taslam aslim taslam yu utikal ajrak marratayni baat yi yomb nga xam ne mais bi muy bind leetar okay dara ne daahiya la ci wàllu baat baat yi mu jëfandikoo ci leetar bi da ngay xooli dictionnaire doo ko firi loolu nit noonu mooy nit ki da koy wàcc place ma ma ma maa ngi ñëw mhm. léegi su ko defee kon mhm. euh, kon uslub euh, adab bi mooy boobu mhm. uslub ilmi nag moom kalimaatul ulama lañ fa soxla ndax xam-xam dong la ñuy jàngale soxlawuñu fa baat yu joxe mooy yi mu taalifee yi sëñ Tuubaa taalifee xam naa euh, xaw nga maa dox ba jëluma ca misaal ci uslub waaye mm, ndax kii ma tax jóg kalimaatul ulama moom nga fay fekk doo fekk baat bu Zuhdu Subban mboolem téere xam-xam yi ñu jàng yëpp Sëñ ko tari ci uslub ilmi hmm. uslub ilmi nag laa ne la am na uslub ilmi mutadib boobu moom nga xam ne day jël dara ci adab jël dara ci wàllu xam-xam uslub mm, ilmi boobu nag li ci sëñ Tuubaa taalif li ci ëpp ci rajas la ko taalif mhm. maanaam ci baxru rajas la ko taalif mbaxru mhm. rajas nag boo ko xoolee musaddasul ajsa la maanaam juróom benn xaaj jus u lay doon mhm. benn jus it moo koy animé muy mustafilun yëpp mustafilun lay doon mustafilun mustafilun mustafilu mustafilu mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilu mustafilu muy juróom benn yoon lay lay takraar kooku la ñu tuddee baxru rajas baxru rajas nag moom la ñu tuddee ximaaru shuara moom mooy baxru man la lam yakun shaayira ah, ko xamul dara ci way jëlal rajas rajas moom lépp la nangu mhm. rajas nangu na lépp mhm, nangu na kaamil nangu na jasbu mhm. nangu na na nangu na chatru nangu na nëxku maanaam li ma bëgg wax mooy nangu na kaamil mooy mustaf ilun mustaf ilun mustaf ilun mustaf ilun mustaf ilun mustaf mat sëkk nangu na nga jasbu ko ilun mustaf ilun mu jeex mustafilul mustafil mujj nga xam bayit bi ñeenti ba ñeenti xaaj la mhm. nangu na chatru chatru mooy nga dagg benn mocc bi bàyyi fi benn ba mustafilum mustafilum mustafilum nga xam ne loolu mooy xasida gi mhm. nangu na nax ku nax ku mooy lan da dagg chatru ba ba nappi daggaat beneen beneen gisu ba ci tegwaat mu des ñaar dong nga xam ne xasida gi lépp mustafilun mustafilun loolu boo xoolee xasida gi moom la xamitu man yaasimu nii min addarar min kulli cheytaan wa wa basar boo ko doon taqatian ah, li ñu tuddee comme xadima jaxatakala mi ngi wax ne mhm. wanzur la daa taqati baytin qad wasim ila tafa ila lahu doon la kalim boo koy ta boo koy taqatee nag da ngay da koy xiraa xiraa arudiya xam nga am lu ñu tudd xiraa arudiya xiraa mhm. arudiya iqaat bi mooy ni maanaam ni ni ñu koy instrumentalisé da ciy feeñaale mhm. maanaam boo koy wasnu da ciy feeñaale mooy mhm. ha mit tuman xam xam boo la jàng na ha mit tuman ha mit tuman kooku boo ko doon wasnu tey mu tafilun la waaye mu mustaf inun uh, arodi yoon dañoo nangu nga dagg siin gi mhm. maanaam as googu mën nga ko dagg muy muy muy muy xabnu mhm. nga xam ne kon fii dafa xabnu gi ha mhm. mi ha ha mit tuman mu mu tafil waaye mustaf nga koy jànge mu tafilun ya si munii kooku mu ngi doon mustailun mustailun da ngaa dagg ñeenteel bu sukkoon bi taf la waroon doon waaye da ngaa dagg ay ayn bi dégg nangu na ko moom moom gis bi mi nat darar mu tafilun par mi nat darar mu tafilun nga xam ne kon léegi fii ne moom it da ngaa dëgg as ga min kulli shay léegi nag foofu loolu la ñu li li dagg nga dagg mustafi nga dagg as gi ak ayin gi ta mustaf nga dagg af ga mooy mustaf ya nga dagg af ga loolu zihaaf lañ koy tuddee mhm. zihaaf nag moom day ñëw ci jusu te du ñëw ci beneen jusu ba jël bu la neex mën nañu bu ne wala di ko firndeel mooy gis nga def nga mutafin fee mhm. def mutailu fii mhm. waaye boo ñëwee fii loo def min kulli shay kooku gisub mat sëkk la moom dëggoo ci dara mhm. min kulli shay kooku mustafilun la mustafilun taanin wa jin ba tey bu wit bu wit dara mu ci mm, dara dëggu ci mm, taanin wa jin taanin wa jin mustafilun la nin wa bashar nin wa bashar kooku mustahilun la mm. mustahilu af gi dañ ko dagg am na lu ñu tuddee si xam jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci leeral yooyu ak euh, xasida gi ni mu amee solo li ñu jublu rek mooy wane circonstance yi ko sëriñ bi def ak ni mu rafete dañu bëggoon dem dakaar nag jëlee fi benn euh, élément rek ñu ñëwaat ci sëriñ Youssou insha allah sëriñ Youssou bu ma ñëwee nag bëgg naa am na laaj boo xam ne maa la ko fi dencal <laughs> waaye nañ dem Dakar jëf mbokku téléspectateurs yi bàyyi xel seen télévision Almouridiyyah TV di leen sant bu baax di leen gërëm si topp ngeen topp seen émission xasaydul kiram kiram comme niñ ko baaxoo ànd ak yéen fii si diwaanu daara Hizbut Tarqiyyah bi fare fii si diwaanu Ndakaaru rubrique bi nga xam ne moom la ñuy wax taxawum njàng taxawum njàng comme niñ koy defee saa su nekk seen émission xasaydul kiram dañ ciy ànd ak waa kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah ngir ñuy dikkal leen ci taxawu ab njàng maanaam daaju xasida yi nga xamante ni bii moom la ñuy amal si biir kuréel ngir indil leen nag tey euh, lu yees peq si li nga xam ne moo jëm si taxawum njàng euh, muy euh, rubrique bu bees boo xamante ne bii wala pàcc bu am solo boo xam ne am na si émission xadalu kiram du ñu leen fas yéene digtal li nga xam ne tey mooy programme kuréel gi maanaam li nga xam ne moom la ñuy digtal indil leen ko si émission xadalu kiram ànd koog sëñ Modou Mbacke Fall ginnaaw bi ñu ko siyaaree ndokkeel ko sëñ Modou tey mën nañoo xam kuréel gi tey lan nañu lan la ñu war a mën a baaxee. bisimilah barke borom Touba. kon ñi ngi jaar mbokk yëpp yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision almouridia ñi fas yéene rek dikkaat ak yéen ci kenn ci jànkat yu mag yi nga xamante ne doon na jàngal njabootu sëñ Tuubaa gi muy sëriñ Basiiru Seen nga xam ne ku yàgg a topp jàngu Hizbut Tarqiyyah daana gis ñuy jàng ay jàngam moom nag am na ci ñaari xasida yoo xamante ne moom lañ gën a miin ak njàngam ci li ñu am lu mel ni Matlabul Fawzayni ak Taysiirul Asiir moom nag daaj daaj boobu nga xamante koo jël ci xasida yooyu di ko jàng euh, conservatoire bi tënkoon na ci ay xasaayit yoo xamante ne dañ ko jël nga xam ci bahru bahru bahru rajas la ñu tënk ko noo xamante ne dañ ko dañ ko wutal xaaj yi ak riim ak mboolem siin ak yeneen siin yoo xamante ànd na ci riim bi kon nag loolu kuréel gi dina ci dikk ak bu buñ noppee doolu jaal ci beneen fànn bi wajjatu kulli lil wadoodi samadi ذا خدمة للمصطفى محمد وجاد كل للودود سمد ذا خدمة للمصطفى محمد وجاد كل للودود سمد ذا خدمة للمصطفى محمد بدنني سملا دور الناس بيه ربي بجاه المصطفى من عاشمي لجاد ربي بالنوال خطنا بالمنتقى مختار من قبل منا دعائي استجاب بالمفي ربي بالمختار من حسين أسأله ليل المنى بلا استلام ولا غرور بالنبي ابن كلام لجد خير وفني مدلنا ربي بجاي المصطفى لمراد طيب وادي برود صابي لأبدا بالمنتفى نكابي يا الله يا سلف والكسي سل بدالي من على الوعين يا ربي سن لجملة المطالب بلا حساب للنبي خالبين bani usaq liyakun la sari wa kulla yawmin bi nabiyyin firi yaa xayra naasir wa xayra maaliki unzur wa maalik liyabni maaliki habiyati wa izzati wa nadari كونك لي فليكن بنذر على euh, jërëjëf euh, kuréel 1 conservatoire boobu ci lu am solo ñu indi ci wàllu njàng waaye sëñ Yuusu balaa may dugg ci lii lépp dafa am dafa lu may laaj tuuti lu tax aw njàngin dafa mel aw daaj dafa am li naa ndax léeg-léeg comme ñun tey sëñ Mara Seck li mu doon def léegi dañ naa ko day rajas donte bi muy donte euh, xasida gi doon njàng la waaye léeg nga gis ku ne diw di moom mën naa jàngal waaye buy rajas la gën a man maanaam ñoom rajas kon am nañ ci istilaax yan ci ñoom seen seen seen xam-xamu njàng rajas am nuñ ko tuddee ñoom mooy kuy jàng euh, kuy jàng yow képp te amu ko la aw dañ koy tudd rajas doon tax rajas ci aaroot ci xam-xamu bind nag moom leneen lay tekki loolu tam loolu loolu bëgg naa la ciy laaj ba xam. waaw jërëjëf sëñ Ahmadou ñu sant waa kuréel la ah, ci lii ñu indi euh, ñoom liñ ci jublu tey mooy mu doon li tubaab di wax didacticiel maanaam mu dimbali kuréel yi nga xam ne dañuy. tontu sama laaj bi nag bala ngaa dugg ci loolu. waaw yomb na dinaa ci tontu ndax xam nga. nit ñi mënuñu miin waxin. daal di koy jàpp muy di kuy jàng njàngum kenn donte basit ngay jàng donte tawil ngay jàng donte xafiif ngay jàng. loolaa rajas ñu ne kii rajas. loolu la ñu tuddee kon kon loolu tam ay wolof. Hmm. maanaam waxi wolof la. waaye lu walaa bal nag. déggu ma wax dama ne. Ah. baatu wolof xam nga hmm. wolof. Hmm. aw làkk la. waaye xasida yi. Eh. sëñ Tuubaa bu ko bindee. du ko bind ummatul islam yooyu yëpp bokk ko. muy ay arab li ñuy jàngale te sëñ Abdoul di ko wax ci wàllu way boo demee Turquie xam-xam bi benn la benn la boo demee Afghanistan xam-xam bi benn la mm. kon dafay loo xamante ne mm-hmm. ñëpp ko bokk langue arabe dafay langue boo xam ne mm-hmm. langue officielle u l'islam la mm-hmm. léegi nag ñun ay wolof lañu dégg nañu mag ñuy jàng yoo xam ne sax wala laa lii na amina la ñuy wax te wóor na ma am nañu ak xaboolin xasanañ joo xamante ne suñu borom nangal na nangulee na leen ñoo xamante ne doo nattal beneen yi am nañ cër ci suñu borom kon wér na kon kon kon damay ñëwaat ci kuréel bi nga xam ne kañ loolu laa bëgg nga loolu laa bëgg ñu sëñ Youssou ci kuréel bi li ñu indi nii waaw te mu wax ne sëñ Bassirou Dieng mii sëñ Bassirou Sène sëñ Bassirou Sène kon di ngeen baal ma sëñ Bassirou Sène moomu ci lañ ko jëlee euh, te mu ne daan jàngal waa sëñ bi waaw léegi moom sañ Bassirou Sène hmm. ñoo ngi ñaan suñu borom euh, ay payam dolli ko teral ci jannatul firdawsi ndax wuy ji na suñu borom doonoon na jànkat boo xamante ne kaw lax na nekkoon di koo xamante ne yàgg naa jàngal njabootu sëñ Tuubaa dégg nga mu ne la euh, mu ngi jàngoon Matlabul Fawzayni lañ ko miine miine ko itam ja daaj euh, xasida Taysiir ak yeneen yu mu jàng waaye bandam yi siiw ñaar yooyu ñoo ci gën a siiw waaye conservatoire Hizbut Tarqiyyah day def bu jëlee benn jàngkat jël ni nga xam ne noonu lay jànge day day day def lu ñuy wax ab tënk ci ne nii mooy rim bi maanaam nii la ñuy jàngee ci ci ci rim bi nii la jàngee ci xaj yi maanaam bu fekkente ne dangay def tolluwaay bi toll ci rim bi da nga bii tamit la ñuy def bu ñu yëkkati ca kaw buñ ko nosee nag loolu comité pédagogique moo nekk ci biir conservatoire tënk loolu su ko tënkee ba noppi mbooloo da koy mën a ànd baat yëpp day day mel ni benn baat loolu xam-xam la moo tax ñoom ñu indee ko nii xasida koo xam ne sëñ Basiru Seen mën na ko bañ a jàng sax wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni bi nga xam ne euh, lam yaddu moom lañ jàng lii bu ko beneen kuréel déggee mm-hmm. day xam ne ah njàng mi de man mën naa koo roy yan tolluwaay la am benn tolluwaay bi mooy rim bi tolluwaay bi ci des bu bu kii ki dëbbe bu defee nii nga xam ne nangam la ci jublu kii dëbbe su defee nii nga xam ne nangam la ci jublu loolu kon ñoom dañ ko doon nos waaye kuréel 1 bi ba ñu ba weesu lii ba dox ba ci kanam dañoo jëlaat sëñ Basiru seen jëlin boo xam ne moo gën a jël nag xereñ gi nga xam ne moo ne ci moom waaye escalier bii ñu jot a jàng de escalier boo xam ne foo nga jàng foo nga jaar maa ngi fàttaliku ci jamono yi sëñ Saliou mu tedd ñi mës nañu eh, ci jamono yi nga xam ne sëñ Abdou Khadir moo fi ne toogal fi sëñ Tuubaa yal na yàlla suñu borom yokk ay xéewalam yokk ay leeram mm. eh, te taasu ci barkeem mm, mm. ba mu fi nekkee am na bés ñu ñu dafa jàng xasida ba mu guddi lool waaye njàng moom mu ñu doon jàng ca gannaaw bi sëñ Saliou moo ñu ko nettali nañu mm-hmm. keroog dafa ñëw ba jege kër sëñ Mourtada yi ngir di déglu njàng bi kenn gisu ko ci lëndëm gi ndax boobu ñu ngi jàngal sëñ Abdou Khadre waaye moom ak taalibe ga newoon ci moom woyof ga newoon ci moom ku ne xam ne ne doomu sëñ Tuubaa koo yittewoo mu jàngal la dina bàyyi lu mu doon def ñëw jàngal la mhm. waaye nee na boobu jàpp na ne jàng gi ñu jàngal sëñ Abdou Khadre moom moo ko yeyoo moom na na làqu fenn rek di fexe ba di ci taasu ndax nee na njàng mi dafa dëppoo woon ak ko bëggee woon kon di jàngale waale ak taalibe di jàngale waale it lan mooy cërub ki fi toogal sëñ Tuubaa nan lañ ko war a jox kon loolu am na solo trop moo tax kuréel un soo ñëwaatee ñoom dinañ jëlaatal xamitu su ñu jëlaatalee xamitu di ñu gis ne ñoom dañoo indi didacticiel mooy jàngale kuréel buy tàmbali nan la war a def ba noppi boo demee ba ba ba sa kuréel dëgër nga door a jàll ci beneen niveau moo tax ma bëgg kiiwu dakaar bi soo mënee dugal deuxième partie bi ba noppi est-ce que du ma du ma ngeen bëgg nga toj ko bu baax nag est-ce que du ma ñëw ci ci deuxième partie bi nii jox la ti nga kii nga gën koo yaatal wala. dama bëgg nga dugal Dakar rek. Mhm. deuxième xaaj bi moom mu mat. bisimilah mën naa ñëw ok ngir ngir ñu mën a gën a. bisimilah mën nañu mën nañu ko dugalal kon. ba ñu teewloo xasida bi xasida bi ñu doon jàng léegi di wal baladu nga xam ne li ma doon leeral sànq tënk gi nga xamante ne tënk nañ ko systématiser ko jàng bi nga xamante ne mooy jàngu sëñ Basiru Seen kon nañu dikk ci ñaareel xaaj bi nga xam ne euh, gannaaw bi kuréel gi doxee ay jéego ba niveau bi niveau bi toll foo xam ne gis nañ ne war nañ koo mën a tënkaat ba mu gën a jege moom ni mu ko ni ko jàngee comme ni ñuy mokkalee lu mel ni sëñ Alaaji Cissé wala sëñ Mayib Gueye ak yu ni demee ñi tënk ko ci ñaari xasaayit yoo xamante ne moom lañ ko moom lañ ko tàmbalee benn bi di aouzu billahi mina sheytaani rajim di euh, aazina al baaqi mina sheytaani beneen bi sëriñ bi tënkee ko xasbunallah wa nimal wakil di xamitu man yaxsimuni min ad-darar kon nag du ñu bàyyi lu def kuréel gi ñëw dikk ci ñu jàng ko ngir ñu mën koo dégg xamitu man yaxsimuni min ad min kulli darar من كل شيطان وجن من وبشر حمد من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه رب الذي تنهتمي بيدي من البلاء والنخم بي أوصم الأوان الرحيم ومن جميع المرجعات كلهم نويت أن أدعو مصطفى بجاهي بسفيه سفا أمد سيد الورى مصليا عليه ذات توسل لربيا عسى ربي بجاه النجاة من الرزايا وتناسوا البخات لك الورى يا ربي أبني سمان منهم ومن كل بلاء ونهما لك جاد يا في نفسي

لك جنابي من جميع ما يسوء والي في كل ما يوسوس عن اذنب الاعداء ادرا للنبي ولبال الكرام من نجومي من علي بالدخول ساكنا في ذكاسين منهم آمنا أنت الذي تعزم ما بك تسام من كل ما يومه من النخم لك أمري أبدا أفوتهم وكل من لك النجاح لا يرفضهم وخيتني يا بر كفرا فخلي داني وكل فتني sant bu baax ci ni ngeen di sonnee ak di yittewoo ngir lan ngir laaxe biir jullit yëpp ndax soo gisee ñu jànge ñu sonne nii ci njàngam xasida ak di sonn ci njàngeen wi daf di lu am solo lu am njëriñ lu bokk ci suñu dund di defar nit lii tax nit nite ndax tey defar xol moo tax ñuy topp njàng mi ak njàngin wi di ko toppatoo moo tax ñu ci sonni nii kon Yuusu loolu baax la lu am solo la ci nii nga xam ne noonu la ñuy sonnee ci njàng ak njàngiin bëgg tam wane ak ni nga nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa daan sonne ak daaj yi nga xam ne moom la fi mag ñi indi toxale ko sëriñ bi ndi tasaare ak wax nañ ko daan njànge loolu ngir tasaare lu baax rek jihaad la ndax tasaare xam-xam la lu am solo la euh, kon loolu yaakaar naa am na loo ci war a yokkaat ci lool waaw li ma ci dolli rek du bari ndax euh, suñ Bassirou Sène mii ñu jël kon ñi ñu ko mujjee jàngee ku ne xam ne ne niveau bi moo gën a féete kaw njàngi mu njëkk bi njàngi mu njëkk bi dañ koo def standard boo xamante ne kuréel bi doog ko tàmbali su ko jéemee daal di mën a dem ndax euh, bu dee kuréelu xasida day soxlawoo xam tamit euh, daaju rajas mus ko mën a jànge loolu da ciy baax sëñ Bassirou Sène boobu ma doon wax ñi ko xam xam nañ ne nekkoon na Côte d'Ivoire ñun de xam nañ ko bu baax ndax yàgg nañoo yor njàngam da euh, fausé ni bii nga gis sax bande bi foo ko mën gisee it jàng bi njàngin moom mu jàng ci Matlabul Fawzayni suñ daara ji nekk Fatick fa ko jànge woon ak fu bande bi mën a yegg rek suñ daara Hizbut bi nekk Fatick fa la ko jànge woon ñu xam ne daan na na def gam màggal gu jot mu dikk ci daara ji dana fi ñëw nga xam ne kon am nañ kóllëre gu yaatu gu yàgg ci diggante ak moom njàngin mi nag dafa bokk ci njàngin mi nga xam ne yar bi matale na euh, euh, respecté na itam li nga xam ne mooy mbind li sëñ Tuubaa bind ndax am njàng dafa bokk ci critères yi ñu koy jëlee mu respecté araf yi respecté li nga xam ne mooy li sëñ Tuubaa bind nga waxee ko ni mu ko bindee loolu kon ñoo ngi ko ci ñaanal suñu borom fay ko aw yiw euh, yoo xamante ne dootul dog ci barkeb xasaayid yi kon defe naa loolu sëñ Mara tamit ñu koy sant bu wér mm-hmm. di la delloo kàddu gi ak benn baat mm-hmm. baat boobu mooy da ngeen a wax ne ndax loolu ñun kuréelu xasida yi dafay baax mu doon dénkaan ci ñun su ngeen di waxtaan ci tawakkulu maanaam sëñ bi ni mu wakkiloo woon ci diggante ak boromam moo ko may lu mu am kon ñun itam su ànd àndee sëñ Tuubaa dañ ko war a doyloo dëgg la waaw dañ ko war a doyloo te itam doyloo ko ci lépp nag nga xamante ne day atte suñu dund ñu xool li sëñ Tuubaa bëgg ñu dundee noonu te loolu loolu mooy rek la sang sangam ba sangam ba bëgg boromam bëgg. moom la dafa am baat bu sëñ Abdou Lahad doon wax. Euh, mu ne. sëñ Tuubaa ba mu nekkee ci géej gi fa mu doon waxee. xanitu bil waahidil qahaari an zumarin wa kaana li wa na kenn ku fa di ko waxal amin wala mu ànd ak moom amu fa. dëgg la kon mu ne gaynde la woon jikkoy gaynde la yoroon boo xam ne wéet musu koo tee xeex benn bis. ni ko sëñ xaali waxee. kon ñun. Mm-hmm. bu ñu la nee taalibe bi sëñ Tuubaa nga mm-hmm. nattal sa bopp ci am aw fit mm-hmm. nekk ci dëgg mm-hmm. bañ caa wéet ak wéet ca nga yamale leen te xam ne yàlla suñu borom bu fekkente ne sax nga ci dëgg dalay dund fa isa asamta fa tawakkal ala allah saa yi demee ba xam ne dëgg gaa ngi ne nga jaar ci rek wakkilu ci sa borom tabaraka wa taala sëñ Mara Seck bëgg nañoo xam ne yow lu dugal ci njàng mi loolu hmm? loo xeer ci njàngum xasida ah xanaa bëgg sëñ bi rek xam ne ay tànk mooy xasida yi ndax daa amoon jànkat boo daan roy di ànd ak moom di ko aw wala ci njëlbeen. waaw daanaa ànd ak sëñ Xaadim Géey sama mu door jàng moom mu ngi ci daara ji ma doon jàng alxuraan laa ko tàmbalee ñu ah. ak sëñ Xaadim ci eh, fii ci kër Wele kër sëñ Thierno ñu doon jàng alxuraan fa laa jàng alxuraan ba bind kaamil waaw alhamdulilah ma bind kaamil nag ba waaye ak bëgg moom a ci dugal c'est très important ñu xam itam gis nga li nga wax ni falaa jàng alxuraan ba bind kaamil saawar yi falaa mokkali alxuraan karim ba bind ko ah, loolu tamit ñu xam ne kon jàngkati xasida bi xasida itam dafa am melokaan wuñ meloo nekkuñu rek di for ci mbedd mi wala déedéet ah, nit mbii ni ñu forme jaar leen formation yi am solo léegi nag ndax ah, daaj yi yow dafa mel ni xam nga ay daaj yoo xam ni ku dégg da ngay xam ne kii Mara Seck la hmm. loolu moom sa jagle suñu borom la boo koy xalaat wala dafa am ci koo ko ci doon royee nit am loo gis ni ko sëñ bi doon waxe léegi am na am na fondement boo xam ne ca lay doore hmm, booy saxee ci dara mooy doon sam liggéey nga def ci yitte. Mm-hmm. mën ngaa dem ba suñu borom defal ak sa mayu bopp goo xam ne koo ko dégg dana xam lii diwa loolu nag pas-pas moo ko mën a maye. dëgg la pas-pas boobu moo may na ci loo xam ne dégg xam nañu la. kañ ñu ko tàmbali. ah 1989. 89 nga ko eh, sëriñ Xaali Jaxate eh, sëñ Mara maa ngi ñëw yaa ñuy tëjal jotaay bi sob yàlla sëñ Xaali suñu borom wax ne ci alxuraan ne. inna allaha yuhibbul mutawakkilin yàlla dafa bëgg ñuy wakkilu si moom ñu ko bàyyi seen bopp te dañuy wax ne buur bëgg la nga bëgg buur buur bëgg la ko gën kon gis nañ ne gis nañ fu sëriñ bi bare lu muy tuddi suñu borom ne soppam la kon loolu ba tey lan la ko jural ci may nag ba léegi yoo xam ne wakkilu googu mu wakkilu ci boromam ba suñu borom tànn ko mu di soppam tam loolu lu ko lu ko may itam euh, lu mu ko bari mhm. lu ko may jóg lu ko may yëg lu tax junjoon naa sànq ne <laughs> eh, ma fàttali ne nag eh, sëñ xaad yi day fàttali micro bi waaye li koy waral nag mooy da xam ne tey jii moom moo jiite rabita al madarisul quraan fii te tey dañoo santaane woon eh, njàng mu alxuraan xam ne ci la ñuy yendu ak coono yi loolu tam moo waral sax ak yeex gi ñëw ne ndax di yàlla tey boon keneen du mën a teew kon loolu moo tax léeg-léeg hmm. coono yi xaw ko jàpp waaw eh, sëñ Ahmadou hmm. <coughs> ni nga laajee def ma jam rek hmm. li ma waroon a rafet loog sant ak lépp <laughs> dama jóg rek song yëf yi <laughs> ne lu ko may lu bari lu ko may jópp lum ko may lépp ndax loolu dama doon junj sànq doon wax uh, suñu borom boo dellusee ci li mu séq ak jaam ñi tudd ko dafay tax fi fi ñu bëgg a jëm mu leer mm-hmm. suñu borom lim siq ak jaam ñi mooy buur la ñi ci des ñëpp di jaam mm-hmm. ku ko daq jaamu a gën a rafetal jaamu ga yaa ko gënal mm-hmm. ku ko gën a nangul yaa ko gënal su ko defee nag wakiirlu dafa mel ni moom ci la ak nangu yem wakiirlu mooy xëccatoo jañatoo bàyyi lépp ne ko ginnaaw yowee lépp defal noo def baax na loolu nag sëriñ bi da koy defee noo xam ne faw yàlla di bëgg ci moom yaa rabbi in aatayta fa sukur wa in manaata faridan wa sabru loolu lu gën a rafet amut loolu mooy lan mu ne yow suñu borom te lépp na ci sa loxo ñuy say jaam nga sant ñu di la laaj di ñu jox sax te te te te duñ la laaj mm-hmm. lépp lu ñu la laaj soo joxee sant nañ la ci bu wér yaay yooyu cant mm-hmm. boo waaye su dëppoo wutoon ak sa ñàkk a joxe it euh, ñu muñ te gërëm. Mhm. noonu laa ko waxee donte mhm. faridan wa sabru waaye. Mhm. yéen udaba bàyyi xam ngeen ne atif ci waaw. ndax rida foofu moo fa gën a kawe sabru. ni kuréel bi doon wax ci étape yi. kon bayit bi dafay jëkk a jàngale ci ki ne ci étape bu njëkk bi su laajee te joxuñ ko mu muñ te rafetal muñ ga waaye ki ne ci étape bu bi moom lu xew da cey gërëm day weesu muñ day gërëm mm-hmm. ku ne xam na ne nag suñ borom mi yor yëf te du jeex mm-hmm. su ko jaamam laajee te joxu ko di ko seetlu su mm-hmm. jaam ba amee cant googu bu ko xëppalaatee dana xam ne kii moom a ta muñal loolu dafa jural sëriñ bi dafa jural sëriñ bi ci boromam min xayri haatin wakam yàlla dafa négatul mu naan ko indi seetatul mu koy jox day tibb rek di ko xëppal min xayri hatin wa yàlla mm-hmm. négatul mm-hmm. sëñ Tuubaa naan ko indi mm-hmm. bu koy joxe du xool mu koy jox day tibb di ko xëppal ndax lan day jàmm bu wakkiirlu ci boroomam ba nga xam ne yàlla xam na ne kii su ma toogee di nekk muy wut ak a jàmbat du du ma ko dégg mukk loolu moo sabab am na ku ko tudd léegi ci yéen ci biir jafe-jafe yi sëñ ab Lahad moo ko nettali woon malawul axla gaa yu baax ya fekk nañ ko fa ci barab ngir gis jafe-jafe yi ni mu baree ñu bëgg koo dimbale kum ci laaj ndax ni ndax ndigal seen borom nga amee mu ne déedéet mu ne kon euh, soxlawu ma mu ne kon soxlawu ma su ko defee kon nag euh, ki bàyyee noonu boppam ak boroomam suñu borom lool rekk lay xool nattu lim ciy jublu mooy wan nit ñi ne kii li ma ko defal du privilège waaye da koo yeyoo sëriñ bi nag wane noonu ci boppam gis nga loolu ngeen tuddoon sànq ce ba sëriñ Mbacke Mor Anta Sali way juram di doora a wàccub liggéey tañ doon ko xëcc mu jëm ca buur ya tam doyloo noona mu doyloo boo demee ca biir wax ya moom fa ngay xame sëñ bi fi mu nekkoon te ba mu cay nekk léeg-léeg da ngay dégg bu ñuy tàgg nit ne jaamu yàlla ga bi jaaw ba yokku ko maanaam melokaan yi daal mag gi soppiwu ko ca booba ca waxtu woowa sëriñ moom fekkoon na ko mu àgg fii mu àgg ndax lu muy wax annee ufawidu axwaali li man xaja xajasuu an xali anfusihim xajsal masaakini aw kayfa yabxasu ni xubbul otaami ilaa jiwaari man dooruhum rawdu sayaatini mm-hmm. annee ufawid xam nga loolu ku jaxle day mel ni ku ci jaxle mm-hmm. man fii ñu may xëcc jëme naka laa fay wutee jee mhm. te bàyyi fi sama borom mii ma bind mhm. léegi nag ku buurub àddina taxaw ngir defal la loolu tam wóor la ne mën na ko nga gàntal ko te yàlla tax soo yi wëlbatiku yàlla di la defal fukki lu buur ba mënut mbaa téeméeram mbaa junneem dëgg la dëgguma de mhm. waaye ndax loolu sax indiwul ku ko songu sax suñu borom ngay mooy mooy ñëw. kay loolu loolu loolu suñu borom moo moo ko wax la yonent bi ci eta hadisul qudsi la. Mhm. ku song sama waliyu. Mhm. waliyu waliyu yi nag mooy Sëñ Tuubaa. dëgg la bu ñu amoon baat boobu def ko. dëgg ku ko songu ndax sax taxutoon sax mu yàlla di ko wax. dëgg la. ndax biraasuman baarisan baarisan yi biraasuman yu baarisul muntaqimul sa man mhm. loolu mooy rafaanil quraanu rafaan qafadaa man saahu taxadumi fan qafadaa loolu mooy sëriñ bi nee na man amatuma sama boroom rek moo am moom laa fi nekkal bu ma kenn seen jàpp ne Ahmadou Bamba moo am xadimu nangam Abdullahi wa xadimu rasul moo am awma leneen nekkaluma fi leneen ba ñu jeex ci moom takk ba moom desatul dara ba ku ko làmb ñoom ngay daj ku ko xool ñoom ngay gis ko ku ko song ñoo lay jàggi ruur <laughs> ce que euh, dañoo la ci njeexteel euh, njeexteel euh, bi kon ñu tàggoo wale Euh, jërëjëf kon sëriñ Ahmad xam naa waxtu wi nag nay na lool. dëgg la. <laughs> wax dëgg yàlla waroon na bu ñuy waxtaanee sëñ bi. Mhm. mu di ko téye tuuti. dëgg ndax ñu gën a mën a màndi waaye daal alhamdulilah. macha allah da ngeen di wax. Mhm. surban yasiidu sama an. Mhm. defe naa dañoo xéer waaye bu ñu fi doon nekk ba suba it bu ñuy tàggoo nii rek la ñuy def. du du duñ doyal. dëgg la. moom mii moo ko meloon ci borom moo tax mënuñu ko bañ a bañ a waaye ndokk bi ñu ko melee ci moom. kon ñuy sant bu baax euh, sëñ Ahmadou ak yéen ñi ñu bokkal jataay bi mm-hmm. ci gàttal rek di sant almuridiya ci bii taxawaay mm-hmm. wax dëgg yàlla émission yépp neex na am na solo waaye xasaa dul kiraam neex na nag <laughs> moo ci dàq moom ah? mm-hmm. waaw ay kon la loolu lu war a yomb la uh-huh. ndax ginnaaw xasaa it yi faaxat xasaa idil kiraam ah, kon xasiidat faaxat xasaa idil kiraam Euh, kon yaakaar naa bu amee xasida bu ko defit mm-hmm. bu bu amee émission bu ko defit mm-hmm. la xaroo fii la xaroo fii <laughs> émission boobu kawe yeneen yi ci des waaye sant nañ ci bu baax a baax a baax yëg nañu ne mm-hmm. am njàngale mu am solo mi ngi ciy am ak dàggeeku mi ngi ci am ndimbal a ngi ci am mooy day tax nit ñi gën a bëggaat xasida te nit lépp luy tax mu gën a bëggaat xasida gën a bëggaat sëriñ bi ndimbal ma yàlla nañ sax di gën a bëgg xasida yi di gën a bëgg sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah baax sëñ Assane moom say say sëñ Abdoulaat euh, looy tàggoo ah, looy tàggoo waaw man damaa waxagul benn. <laughs> léegi ci ci tawakkul bi ñu doon wax rek ak. Euh, question bi ma mujj na wax li ma wax mooy li ma war a wax daa bëri nga. waaw waaye nga rek jamono ji moo xaw a waxat. dëgg dëgg Mouhamed nag say mbir wér sa ko dina xam moom sax ma joxe ma ma tàggul waaye nag bala maa tàggul danaa wax li ci tawakkul léegi xasida gi ñu doon tiim. Mhm. muy firndeel wakkilu gi sëñ Tuubaa wakkilu ji boromam. Mhm. subhaanahu wa mhm. euh, wax naa ci wax naa léegi ci asiru waaye boo jëloon xasida ak yaa jumlatan mhm. moom it dajaa feeñal ak wakilu gu mat sëkk mhm. xasida gu maanaam xasida géej gi rek seen biir yaa jumlatan waaw kay ma a ngi jàpp maanaam da ngeen maa génne mhm. ngeen jàpp ne yaa jumlatan qad sallasoo bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqina bi annani abdul wa inni la mujahid waaw nga xam ne kon léegi jaamu bi yàlla laa kon ba kii lu muy fu sama sama borom rek laa la la laa féetoo mhm. xool gis nga xasida gi mhm. eh, ci wakkilu gi mhm. antal ladi taasimu man bi kaatasam min kulli ma ya ummuhu min a niqam waaw nee na neen suñ borom képp ku mucc yaa ko musal waaw lépp lu nit di daw ngir mucc ja yow yaa koy musal kon nag ci yow rek lay sukkandiku ndax dañu wax ne wax na wax na wax ko ci mbir yu bari wa kun bi rabbika al muini dastiaan wa in bi gayrihi staanta la tuaan nee na bu fekkee da bëgg ndimbal te noppalu wakkilul ci yàlla boo xasee wakkilu ci yàlla da ngay nopp da ngay noppalu ndax ndimbal ci moom lay jógee ka lay dimbalee moo koy jox lam lay dimbalee kon nag dellul ci moom mhm. nga ndax xasida xasida gi gi mu wax léegi ci Mamour Anta Sali mhm. muy xasida xaalul yarkan bi mhm. ci anna ufawidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masaakin mhm. dacaa teg boo demee tuuti wax lu tax lu def loolu mhm. in kuntu daa xasanin mhm. aw kuntu daa watarin daawtu dal ayni qabla rai wa chin mooy lan loolu su ma amee lu may bëgg wala ma di ko ñaan yàlla mi borom aras laa koy sàkku ci moom waaye du ma ko sàkk soo morom bi def gis waxoon waxoon na ko ci beneen barab euh, yadii li mugnin karimin naafiin samadin laa li dara himatati min sulayti kon wakkilu gi wax dëgg yàlla eh, waaw dëgg yàlla am solo li wax rek waxtu moo ñu xoj waaye mbir mi neex na te am solo lool sëriñ Youssou baat ñaari baat ñu jox sëriñ Mara sekk mu tëjul ñu jotaay bi waaw ñaari baat yi moom mooy ñu eh, santaat mboolem ñi sonn ci xaside yi mhm. ak fu fi mën a ne mhm. te xam ne Euh, sëñ Tuubaa fàggul nañu ko ngir lépp loo xamante ne lottoon nañ ci rek xasida yi sëñ Tuubaa yi dinañu ko fàggul mhm. njëriñal ta tey ak njëriñal ëllëg mhm. ma bëgg itam ñu xam ne xasaayidul kiraam ci émission yi di ñëw màggal gi dafa jege si ginnaaw màggal bu mag dafa jege si kon yow sëñ Ahmadou Touré commencé nañ ñoo lay ñaan kon thème nga xam ne ñi ñu ko jëlee tey ñëw ci sëñ bi digganteem ak boromam wakkilu gi ñu xam ne kon dugg nañu màggal. ok ba ngeen daw ku ne si kanam mbay moo nga daw. parce que euh, lu kiraam ngi ñëw ndax ndax kuy sant yàlla kuy sant bay sant suñu borom mhm. jàkkaarloo géeju maayom ba mhm. kenn wéttaliwu la te bu ñuy mhm. dem mënoon na ànd mënoon nañ ko fukk yu mu a dem ci yàlla la jëm loolu kon ki def loolu dem ñëw indi ñu njëriñ loo xamante ne ummatul islaam yi yëpp xaj ndax tey ji bu jamono bu musiba dalul ci mbindeef yi ni ñu wóor ne xam ak ki ko xamul liggéey sëñ Tuubaa moo ko waral kon defe naa sëñ Mara ñu ngi lay sant bu wér di wax tamit kuréelu xasida yëpp ak mboolem jànkat yi ñu gën a rek xam ne émission bi ñoo ko bokk ñuy woote yëglu ñi nga xam ne dañu am ay xalaat yu rafet yoo xam ne sëñ Amadou Touré ñoom borom xam-xam ne dinañ ci tontu sëñ Amadou ubbi leen rek. Mhm, ndax euh, sëñ Tuubaa xatalul. Mhm, te it euh, euh, dëkk bi day dëkk boo xam ne. Mhm. Maodo al fikrati wa tafahum. jeex na doon tamit barab boo xam ne maskana taallum la. ah loolu moo tax kon boroom xam-xam yi dinañ ci joxe seen xalaat. incha allah ko jëlee tam ko dina jur loo xam ne mooy dem ci jërëjëf sëriñ Youssou ñi ngi gërëm tam mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen jotaay bii di xasaayidul kiram di nuyu suñu gan gu tedd gii di ko sant ci ñàkk jot gii waaye moom moo mel noonu rek l'islam rek ka ñor moo nekk ci këram loolu la fay doxal muy dox ci mbedd mi tam liggéey bu baax di ñaan suñu borom defal la gudd fan ñaan itam sëriñ Abdou Ahad yow la liñ ko wax lañ lay wax rek xam-xam rek la ñor moo ne sa kër yow itam ku ci nekk sa kër daara fa nekk ngay jàngale di di saare xam-xam kon ñu ngi leen sant bu baax di sant sëriñ Youssou bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom itam li mu ñàkk jot day ñëw toog ànd kook ñun di sant suñuy réalisateur di sant suñuy caméraman yi nga xam ni wax dëgg yàlla booba léegi ñi ngi fi nekk di jàpp ci liggéey bi ñoo ñëpp ngi sant sant mboolem ñi nga xam ne ñëwoon ñuy topp ci seen jotaay bi di Xasaidul Kiram léegi ni ñuy def mooy jox ma Mara sekk moom nag dañ koy beral cant gu mag la ñaanal yàlla na la xasida yi teral fii ëllëg ci barkab Sëriñ Tuubaa kon boog dañuy ñaan rek nga tëyal ñu jotaay bi ci xasida googu nga xam ne moom nga ñuy bégalee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 allahu akbaru mimma kuntu afaaluhu wala su axsha wala arju si wallahi dikri wa shukuri wa ridwani wa mahmadati bilxalbi waljismi walaqlaami lillahi kulli li rabbiya fi sirrin wa fi alanin ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باخ وأشكره إلى الجنان بخول الحمد لله وخاني الضرة تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي fa kuli taaba fi llaahi allahu adhaba ma yatu asan li siwa maaxtiira li inda rabbil akrami llaahi lahu lwujudu allazi xad saanahu xidamun mahal baqaa'i wa xayru llaahi lillaahi lahu shukuuri wa hamdi raadiyan wa lahu kulliyati sarmadan fal xalqu lillahi huwa alkarimu alladi lin xaada duuna anan maxtaara li hindahu fal amru lillahi faasat xilaami bi dikrillahi mustamanin wa faasa kulliya fi daarayni wallahi yaquudu lillahu fi daarayni murtadiyan عني مرادي خوض الباسط الله أفنى خلاتي بلا توجيه ما بدم إلى جهتي ساجر لدى الله يدي وقلبي له هبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب سل وسلم سرمدا كرما ala wasilati alxusma ila allahi aska salaatin bi taslimin bila adadin ala nabiyi rasuli alabdi lillahi muhammadin xayri man xaabu wa man xadaru wal aali wa sahbi hisbil malikillahi madattu lillahi rabbil alamina yadi wa maddali minhu fadlal waasiillaahi xamaalikin naaficin barrin raditu bila suxtin wa an xaaidin lillahi billahi daa li dikrin wa shukurin jussati karamun mimman bihi saara kulli taata allahi wajatu kulli liman yuxni bila sababin an al azaa raadiyan hanzil warallahi diini ila aljannati l islaamu wa huwa ala diinan siwaahu wasaa nasum min allahi ataaniya allahu dikran min ladunhu waqad xabiltuhu minhu daa xurbin min allahi taslimu baaxin ala xayril wara wa ala hisbin lahu wa ala almustaaqi lillahi